salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum wa rahmatulah jeudi le 10 octobre 2019 ñu ñëw ak leen ci yëglekaay yi yëglekaay gi di sunu lamb dafa xëy ak ñun ci ki nga xam ne moom mooy Luc Nicolaï Luc Nicolaï nag nee nañu mu ngay xalaat wala muy gént li nga xam ne moom mooy combat royal bi te sax di ko démarché ndax kii di biram ñi nga kat nee na Luc Nicolaï ci boppam moom contacté na ko waaye ki nga xam ne moom mooy Ama Balde est-ce que moom am na droit. bañ ki nga xam ne moom mooy tafaatin waaye loo ci mënti dégg alin Diop nee na leen ci kanam daal ñu xam lan moo ci xew ki nga xam ne mooy rëg-rëg nag xam ngeen ne Yékini Junior Sa Thiès ak Gouye Gui ñoom ñëpp dafa mel ni xooluñu ko ndax dañ ko ragalam déet waaye kii de Kébé Kanté daal nee na moom en tout cas rëg nii day deful dara lu dul ragal ki nga xam ne moom moo di Malick Niang ndax kat seen combat doxoon nañ ko te mun na koo bañ waaye fi nga xam ne moom mooy euh, sunu làmb ba léegi écurie Thiès mbooloo dañoo def seen i bilan xoolkat kat am nañu fukki combat juróom benn victoire ak ñeenti défaite Modou Anta nag ak Laye Gothé xam nga ne fa la waree muy écurie mbooloo muy bilan boo xam ne kat bilan bu acceptable la ndax juróom benn ci kaw ñeent ci ay défaite dafay mel ni nag bu doon examen dañuy naan passé nañu en classe supérieure waaye nag yeglekaay bii di sunu làmb nañu Tyson mii kat bu leen yaakaar ne dafa màgget wala dafa bàyyi boppam ndax Tyson kat mu ngay lijjante boppam ca place yu jàmmalaay ba kon boog champion ñu ngi koy wax jërëjëf waaye record bii di yëglekaay ñëw ak ñun ci nga xam ne moom mooy Papa Sow ne Sow kat depuis 2013 la gëj a am victoire ndax am na ñaari défaite ci diggante boobu am ci ñeenti année blanche yoo xam ne da ko toog. maanaam année yoo xam ne da ko toog te bëriwul waaye nag bu ñu demee ci record ba léegi fi nga xam ne moom mooy licencié CNG yi benn mbër daal dagagul lii di licence kon dafa mel ni benn mbër daal ba léegi nag nekkaguñu à jour waaye fukki promoteur ak benn nekk nañu à jour te jël nañu benn gala boo xam ne am nañu yaakaar ne dina am le 3 novembre ca lutte simple lay doon waaye Jax la ñu yaakaar mu tëgg boobu journée ndax moom Jax kat moo ko ubbi woon daaw xëy na ren mën naa am mu ubbiwaat ko ci li nga xam ne moom mooy lutte simple ci Adrien sengor waaye association des arènes Adrien Senghor bi nga xam ne ñoom la Pango Sémou Diouf eh, jiite ñoom kat faral nañ di tëgg le 10 novembre ndax dinañ ko def bii pa waaye loo ci mënti dégg loolu daal dara lay regu ci fii di Leewtoo point net nag ñu ñëw ñoom ci yellikaay bi indi ñu réunion bi nga xam ne moom moo amoon diggante promoteurs yi ak CNG de lutte promoteurs yi daal ñëw nañu teg la nga xam ne moom mooy seeni jalon ne nii la ñu bëgg a doxale ci ay combat ci ay nombre de combat ci ay yeneen ak yeneen lu mat daal juróom-ñaari point ak yeneen yu sew yoo xam ne dañ ko sërxal ci biir ñii nga xam ne mooy promoteurs yi daal Jax moo yoroon seen kàddu mu ngi ci Leewtoo point net waaye tam Leewtoo TV demal nañu fële ca Géejawaay ca safaru Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye le lion de Géejawaay Balla Gaye daal dafa mel ni safaram daal boucher nee na amul benn roi bu fi nekk bu dul Balla waaye nag yàgg maar boucher ci boppam yemul foofu de ki nga xam ne moom mooy liiru jaan nee na safar fii la yem ci géejawaay ndax Balla Gaye de def na safar bi nu mu ko war a defee ku ko defati itam dootul saf kenn ak loo ci mënti dégg yàgg maar affaire yaa ngi noonu safar bi daal cee ca waay saf na sàpp ñoo ngi leen di jox dig daje suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf